inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu sant yàlla bu baax julli yonent bi di santat bu baax sunu borom mi ñu may tee ñu teew fii ci Touba ci ndogalam ak katanam ndax lu ko so lu am rek mom la soob te lu am tam neex na ñun julli ci di nuyu nak xalif général de mourides seigne Mountakha diko ziar bu baax di ñaan yàlla mu yag fi bu baax te wér du nuyu kilifa diine yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne ñu ngi nuyu soo indi nuyoo son excellence le président Macky Sall fi njaboot gi ñu fekk ci kër gi waaye indi nuyoo président Macky Sall ci waa dëkk bi yëpp ci waa Touba yëpp rawatina nag xalif général des Mourides mun taxa Mbacké te nag yàlla dafa dogal ñu ñëw ci lu tiis ci lu metti tax ñoo jóg jóge dakaar ci ndigalu son excellence le président Macky Sall nga xamne ne président de tous les sénégalais yàlla dogal mu jox ñu ndigal jox ñu instruction ne fep fu sénégalais nek ci réew mi bu am jafé jafé yéen ministre da ngeen déplacer wu dem fa xol sen taxaway naka la ngeen jappalé len ci lolu nak motax tay ji agenda yi lu mu charge ak lu metti ñame wu ma dee suba dem conseil des ministres te waxuma président ne ko demoon na Touba démb. moo tax suba bi ñu xey am réunion ma dag réunion bi ñëw Touba pour seet len

naqar bi tiis na metti na waaye nag as jullit dafay gëm sunu borom te xam ne li yàlla moo ko dogal yàlla mënoon xale yooyu tey duñu weesu bés bi nga xam ne moo leen sunu borom jël jëne bi nag metti na lool waaye jullit nag su amee naqar ñëpp ju taxaw bokk ak moom naqar bi waxuma dëkkandoo yi waaye xarit waaye ba Sénégal yëpp waxuma la moon ante ñëpp ànd nag yéen naqarlu li nga xam ne moo am parce que lu ñaaw a ñaaw la tey bi ñu demee ci réunion bi ñu doon dem tey nga xam ne affaire xale yee taxoon ñu dem tey ci réunion bi suba li ñu mooy def une ñaana xale yooyu te tous les partenaires képp koo xam ne ci àddina bi rek xam nga ne am na ñaari xale yu dëkk fii Touba ñu def ci ñoom lu ñaaw a ñaaw loo xam ñëpp ñu ngi koy naxarlu loolu jar sant yàlla parce que boo nekkee naxar sa mbokk yi taxaw autorités yi taxaw gouvernement bi taxaw waaye àddina bi yëpp di ko maas di ko méttitlu loolu jar sant yàlla la di jaale ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen ay doom soxna yi maa leen nuyu bu baax soxna Momi ak soxna Maam Jaara maa leen nuyu bu baax di leen wax siggi leen di gaale sen ay dom di ñaan yalla suñu borom yalla nek dawal bu yiw yalla len teeru bu keroog àllaaxira yalla len Serigne Touba teeru yal leen yàlla xare ci àjjana yi gëna kawé ci barké Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne suñu yitt ñun moy nek ci wetu population yi man en tant que ministre de la femme de la famille et du genre monsieur le président de la daf ma sant pour ma taxaw ci kanam mu njabot gi taxaw ci kanam askan wi taxaw na particulièrement ci kanam xalé parce que xalé ñoy avenir réew mi mm-hmm kon lepp lu leen di protéger ak lepp lu leen di jappalé pour seen taxaway gëna a dëgër pour ñu gën a leen bañ a bañ leen faagagal ñu lo suñu liggéey la bok loolu moo tax suñu tànk yi ñu indi ko fi ñew di leen massawu coono yi xam amuñu mo nak pour exprimer tristesse bi exprimer naxar bi wax li nga xamné ne mo metti parce que nak ñak sa doom dafa metti ci condition yi ñu ko ñaké nak waxatuma ci condition yi ñu ko ñaké di tamit nuyu bu baax sëñ Baara tamit ñu koy nuyu Touré mom tamit diko ko wu di ñaan yalla yalla yalla def mu dellusiwaat ci njabootam bala yàgg yaay yëkkati ko te ba ngeen tëral kenn di nuyu kilifa yi ñu fekk ñëpp famille bi yaay yeeg jarbaat yeeg rakk yeeg mag yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaale ñëpp nag di wax ne son excellence daal le président Macky Sall mi ngi seen wat seen kanam seen ginnaaw di leen jàppale ci lépp loo xam ne pour oyofal naqar bi la procédure judiciaire lépp luñ ci war dinañ ko def ba xam ñan ñoo ko def parce que dëkk bi dëkk yoon la képp koo xam ne da nga jaar di yoon dañ teg si yoon dina dal sa kaw ngeen dalal seen xel te xam ne recherche ñu ngi ci police ngi def liggéeyam incha allah bala yaa dinañ xam kan moo def lu ñaaw loolu ñu jàpp ko teg ci teg ko ci yoon parce que loolu moo war kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax allahuma salli ala seydina muhammad wa sallim yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu yàlla boole dimbale te ñëwaat fi ay bés yoo xam ne yu dàqale la ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam